di dëkku borom daarul moxti tam dëloon fi doomam sëriñ Mahmoudan Mbàkke ñu feggoog ay mbokki taalibe yoo xamante ni ñoo fas yéenee def ay soññe ak ay sant ci bis bi diñ ci njëkk tàmbalee dañuy jox kàddu gi sëriñ màggat ñang su ko defee moom dina wax ci xamal nu kan mooy jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mahmoudan Mbàkke buñ ci jógee tamit dina jox kàddu gi bàyyi àllaaji sill su ko defee moom it dina wax ci programme mu màggal gi ak ni nga xamante ni lan mooy jikkoy sëñ dan mi nga xamante ni moom la ñuy defal bis bi ak lan ndaw yi lañ mën a jàngee ci moom suñ ci jógee tamit incha allah dinañ jox chef de village bi muy Baye Moustapha Diop mu àdd ci kàddu chef de village bi ak lépp loo xamante ni ci dëkk bi da koy aajowoo ak loo xamante ni euh, rôle pour chef de village la incha allah dina ci àddu kon ñu jox sëriñ màggat Niang rek mu wax kan mooy jëmm ju tedd ji ñuy defal bis bi muy Serigne Mahmoudan Mbacké Kosso sëñ Maguette bisimilah. sëñ Mouhamadou Mbacké man ma mootali li may wax ci yow ah li ma xam si sëñ Mouhamadou bi waaw li ma xam ci sëñ Mouhamadou bi nit ku ragaloon yàlla ku maanu ku bëgg lislaam bari yërmaane lool bari xam-xam lool ndax man mii dem moo ma yar ci néeg bii may nekk ci sama juróom-ñetti fukki at maa ngi ceeg bi may nekk kosa gii booba de neexut a nekk ak kenn ci dëkk bi ndax naqar yi waaye lépp sëñ Mouhamadou da ko boole woon maanu ak laabir ak soxlaalul kenn dara tey dimbale doomu aadama yi ci moom laa mas a gis mu nekk kose gi mboolem lu sant Mbàkke bu sa koy ngay doom joo yaakaar indi nga ko kose gi mu defee jànge mu def ci yow xam bu mat sëkk te kenn mosu koo ne soxlaalul kenn dara li ma mën a seere si moom daal mooy man mii bi may ñëw fii ci kosa gi daal yaari daal laa fi fekkoon ñuy dundee ñuy dundee dund gu naqari di jaamu yàlla jaamu yàlla gu mat sëkk te kenn mosu ko soxlaal dara mos a tukki mos a dem fenn njabootam gi it ci la leen yare yare ko mboolem di dib taaliba boo xamante ne aju nga ci moom benn taalibaam bu mos a wax def def ne njombe wala mu wax ko am ndax sëñ Muhammadan nim nu yare taaliba gu mat sëkk yare ki teggin lañ wax yare xam naa ne nag ku laabiir la woon koo xam ne na lépp loo xam ne ne Maam Cerno soxla wu ko sëñ Tuubaa bëgg ko sëñ Mahmadan amul ci soxla mosu cee bëgg dara lu jàmm yàlla awoof njabootam gi bi mu nekkee ci bi ma nekkee kose gii sëñ Mahmadan day doo ngaa mi képp bi mu bàyyeekoo ci bi mu fi bàyyeekoo lu ma téeméeri fas yoo yu ma xam yoo xam ne jox na ko ay bam ñu di ko liggéey te kenn musta xam ne sëñ ne la ko jox kosa gii daal dëkk la boo xamee ne daal dëkk bu jaamu yàlla la dëkk bu sell bu am yërmaani ci doomu aadama fii laa toog ñu ñëw yëkkati xaalis jox ko ren mu denc ko juróomi at ñàkk ko joxoon ñëwaat mu waat sëñ Cheikh Astou Faye mu ubbiwaat gaal gi dindiwaat xaalis ba delloo leen ko laalu ko teppiwut leetar bu xamul lu ci ne kon nag ñun ci loolu nu yaree njabootam gi it li mën a seere ci jëmmi sëñ Tuubaa ne mboolem loo xamante ne lu lu lu ñuy xeebee nit wala lu leen di na wax lu ñaaw doo leen ci dégg mukk doo leen ci dégg mukk jaamu yàlla liggéey jàng yem kosa yem ci lii leen yàlla defal doy loo sëñ Mahmadan rek taalibaam it gisuma ci benn taalibaam boo xam ne dina nekk fenn ci réew mi defuñu jàmbi wuñ naan lii ku ko def ñu ne sëñ Mahmadan dana ko yeet amul amul amul kosa gii rek métti na métti boo xamante ne li ma ci mën a seere mooy wax nañ ma ne kere bi maam Thierno joxe sëñ Mouhamadou dëkk bii moo nekk bàyyi mu xëri sil ba mu ne koy lu ab fukki kilo pepp la ko jox ne fukki kilo pepp yooyu ca la doon ca lay tibb ci loxo am di ko xooj di ko bu wooree ba jant sa fukki kilo pepp yooyu moom la wooree ba koor ga jeex kon nag nga war a xamee ne kii xam nga ne moom kuy def loolu soxlaalul kenn dara man de maa ngi nii man Maguette Niang man de damay ñaan ci yàlla jëmmi sëñ Tuubaa njabootam gii mu fi bay ak taalibaam yi jébbalu ci moom ak ku koy yaakaar lépp luy di ndogum àddina ak yàq-yàq àddina muy xeetu seytaane ak mën a doon yàlla na leen ci yàlla musal ba faw ak ku leen ci ànd ak ku leen ko yéene ci kattanu sëñ Tuubaa man de moom a yar bii day toog naa moom mag moom képp mu ne màggat ma ne ko Mbàkke ndey di sa bàyyi àddina ak alaaxira song man la song yëkkati ñam sëñ Tuubaa daal lekk jox ma ko moom nag daa am loo xam ne na war na koo mën a wax ci man moo tax mu di ko def yéen waa rajo bii nag man maa ngi leen di sant di leen gërëm yal na leen yàlla fay fay gu rafet loon barke sëñ Tuubaa Mbakke lu lu piir daal laa xam man ci sëñ Mamadu Mbakke akuk ragal yàlla laa xam ci moom laa xam ci moom mënuma ma cee xam leneen ak lu ndax man ginnaaw man jàngu ma damay bañ di wax loo xamante ne bu ëllëgee ñu ne yaa ko wax te lool te loolu am jërëjëf waaw jërëjëf suñu bàyyi màggat ñang kàddu yi am na solo bu baax ci jëmm ju tedd joo nga xamante ni ci nga doon def ay saare kon bu buñ ci jógee dañuy dem ci sëñ Baye Alaaji Sill mu dolli ñu waat ni ci jëmm ju tedd jooju muy Serigne Mahmoudan ay meloom ak naka la doon yare mag ñi ci biir dëkk bi ak na la ñuy soññee ndaw ñi nga xamante ni ñoo bëgg a xeeñcu jikkooy jëmm ju tedd jooju muy Serigne Mahmoudan kon ñoo ngi taatan ay kàddu ci jëmm ju sell jooju nan la daan yare nan la daan soññee mbokki taalibe yi ba mbokk bi yëpp mën cee jël billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen balu ak leen doolee siyaare ci bis bi itam ah jëm jooju ngeen wax nag muy jëmmi sëñ Mahmoudan ah lu ci bari lu am solo sëñ màggan ñang mi wax ko waaye nag daa doon jëmm joo xam ne ak dundam lépp lépp lépp da ko tekki ci yàlla gu wér ak liggéeyal yàlla muy yaar yoo xam ne dañoo den te wuute lool te lenn loo xam ne danaa daana ci des amul ndax boo seetee ñi nga xam ne ñoom la yar yaral leen boppam seen seen seenu doxin ak seen jëf ak seen waxin lenn loo xam ne dan ko seet maanaam lenn wuute ci sareexatul islaam amul dawati nag buñ jëfee kon loolu doy na ci firnde ci sëñ Mahmoudan ni mu nekkee woon fii boo xoolee koo xam ne dox nga ba dajeeg moom nga laaj ko ne ko foo dëkk mu ne koso laa dëkk koo yaakaar mu ne sëñ Mahmoudan ku la yar mu ne sëñ Mahmoudan kooku da nga gis ci moom aw doxiinam ak waxiinam ak jëfiinam jëf joo xam ne néew ma doo ko gis fenn waaye niiwaane loo koy am loo koy gis ci barab akuk dal moom nag doon na jëmm joo xam ne jiggante lislaam ji dara des ci ni ma ko waxee woon ak liggéeyal sëriñ bi ba noppi nag teg ko ci acteur bi ba foo dajeeg moom daje faak lenn luy niru kilifaam walla la alali kilifaam kookee doo jàpp ne kii mooy jëmmi sëñ Mahmoudan ndax dana fa wàcc wàcc goo xam ne doxin fa doxinu taalibe boo xam ne maanaam jàppoon nga ne sëñ kii jim ku am daraja ji mu am du doxe nii tayit maanaam nim mu ko waxee barab bi dafa doon barab boo xam ne ah, dafa mel ni la sëriñ Tuubaa dencaloon borom Daaru Muxti am na ci loo xam ne nekk na fii ak li fi borom Daaru Muxti liggéeyal bopp rawati nag sëñ Mahmad ndax ba borom Daaru joxe ndigal lay booba li wër koso lépp gor nañ ko waaye am na ay at mu door a jox ndigal euh, sëñ borom daaru muxti sëñ Tuubaa door ko jox ndigal mun ñu door a gor koso ba mu ko gore wax nañ mane ne nee defe na ko mooy fekk foo xam ne seytaan du ci amu yoon tey ak ëllëg ba mu ko goree moom borom door liggéeyal na fi sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ne fenn foo xam ne Ah, maanaam sa xel na na natt liggéey boobee te du ko romb du am ndax liggéey na fi liggéey boo xam ne defar na lu bari ci ay jamono yi yàqu ci jamono jamono ji la ko liggéey loolee mu nekk ci nekk ci nekk ci ba ab liggéeyam mat ci biir ba ab liggéeyam daataan matit la mu waxoon sëñ Mahamad mooy dama bëggoon ku ku ma toogale kosowe fekk fa ab taalibe boo xam ne sëñ Mor Xari Sil lañ koy wax nga wéttil ma ko mu ne ko fas naa yéene li fi ma fekk si lu mu ko jóge te loolee la def ni mu ko waxee moom muy li kosa di tiis tiis tiis ak li muy metti metti metti metti sëñ Mahmoudan ànd na ceeg dal ak rafetal goo xam ne Moustapha nga ci jaamu yàllaam dara Moustapha nga ci liggéey sëriñ bi dara ba nga xam ne lii moo tax xiif bi wala mar bi wala coono bi Moustapha ñoom ñii xam nañ lii ma wax ndax daana fajaroo fii dem di leen riyaay ca daara ja te diggante fii ak daara ja ab diggante la mu nekk ca loola nekk ca loola xoolu lenn lu weesu lislaam ji ak taalibe gi ak liggéeyal sëriñ bi ba ab liggéey mat mu yëkkati ko nag teg ko ci loxal doomam ñuy sëñ Maamoor Koso sëñ Maamoor bi muy jël nii boobu metti woon na lool te jamono yo mu tolloon lu metti lu ne nag am na lu ko gën a metti waaye moom la mu dajaloon metti na ndax booba xiif jógu ko fi mar jógu ko fi wéetaa jógu ko fi mu ne fi tum te yaakaar yàlla ak jëmmi sëriñ borom dooru mi sañ ci dëkk bi ak jëmmi sëñ Mouhamad mi mu wutu fii la fi borom dooru bàyyi woon sëñ Mouhamad di dox ak moom ba yóbbu ko foo xam ne fooguñu ko woon sëñ Mamoor ba mu ko jëlee da ko yóbbu feneen foo xam ne kenn kenn ku ko foog amul ci wàllu lislaam gi ak wàllu taalibe bi gi lislaam sëñ Mamoor li mu fi nekk lépp lislaam jëmu ko bokk jëmu ko dëkkandoo jëmm ko taalibe bi gi jëmu ko mu nekk foofu ba wàcc ab liggéey kon ñii fi nekkit lim leen batale woon yokku nañ muy suñ maam suñu maxtaar mi nañ ñaan moo njabootam ñëpp ay rakkam aki doom ñëpp ñu bokk fi yàgg ak taalibe yi te mucc ndax fu liggéey fu fa suñu maam Mor àggale woon liggéey bi bàyyi ko fa rombale na ko fa te te ànd kook njaboot suñ te boole ci nag maanaam doxin woo xam ne lenn lu muy teg doomu aadama du am ci force te lu mu lay lu ne da da nekk ba xam ne kii bu la ko waxoon li bëgg-bëgg man ci la nekk mu door la koo digal nga ne ca kon bu ñuy wax kilifa gu kilifa yomb na waaye kilifa gu mat kilifa moo jafe te yàlla dénk nañu ko kon nag loolu ba tey nun waa dëkk biir war nañ cee am ak jàngaat ak waa dongo yi fi nekk ak ku di taalibe te aju suñ Mahmouda ndax ñoom kat soxlawuñu àdduna xooluñu am riir xooluñu ab yëngu bëgguñu ku leen dawuñu ku leen di ŋàññi ca lañ war a ne dawuñu itam dabuñu itam ku leen di tagg ngir àdduna loolu amuñu soxla lañu am soxla mooy liggéey ak jaamu yàlla te képp ku ànd ñoom ñu teg la ci yoon woo xam ne boo ci awee ta ko wàcc suñ borom dana leen musal ci lépp loo xam ne lu doomu aadama leen musul tey ak ëllëg kon loolu war nañ cee jàngataat bu baax ne ku am lu kenn amul wa ilaa ñu bari amuñu ko te ni nga ko amee ni ko ñu bari bëggee yow war ngaa am góorgóorlu maanaam bis bu li ñuy wax naan njëkk ci am pax sa loole mujj ca biti loolu war na noo mën a bañ a dal nam nuy bañ a dale nag mooy nan ne dana suñ kilifa yi buñ xool kenn buñ xool fenn di déglu seen digal di ko jëf tey lépp lu lu ab taalu bi di jëf ci ab sëriñam ci lu mu digal ko bu boobaa nu di ko jëf ànd koog ñoom buñ ko defee danan danan danan góorgóorlu kat danan danan danan mucc waaye nag li li gën a doy waar mooy sama baay jëfal na sëñ Tuubaa wala sama maam jëfal na borom daal nga nga bayliku bañ a jëf sa jëfi bopp da bàyyee sa sa baay jëfam te jëf sa jëfi bopp dajale loolu mooy li nga xam ne mooy jariñ teyit ndono bañ koy wax da nga koy dundal sa ka nga topp ba gisatoo ko nga dundal loole ba ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow nekk sa ginnaaw di dund loole ba bis boo bu yàlla dogal lu mu yàgg yàgg yàgg boo gisatut buñ la gisatut itam bu boobaa ña nga bàyyi gannaaw mën a dundal la la la la sa maam daan dundal sa bàyyi yi ko dundal nga di ko dundal ba ni nga ko jóge loolu mooy aw doxin sëñ ma Mahamada nag doon na jëmm joo xam ne kenn mun ta wax ci moom ci saahiram waxuma ak baatinam waaw ndax daana bu masaan dénkaane ba noppi day wax nañ ne daana wax ne lii ma leen di wax man Mahamada bu ngeen di noppee bu ngeen gisee ma noppi cee nekk nga xam ne nit mu du soppi ko waaye yàlla la mu doon la mu doon digle tey la ko gën a digle la mu doon bëgg tey la ko gën a bëgg waaw ndigal la nag weesu góor góor jaamu yàlla ak euh, euh, euh, sax ci liggéey sëriñ bi ak maandu moytu ak tooñ tey bañ a doole delloo tooñ waaw kon nag maanaam jëmmi bis bi moom làmb na loo xam ne lii ma ci waxit ah lenn dama koo dégg lenn damaa dem ba xalaat ni lii mooy war a mën a am waaye samay at mayewu ko ci loolu ndax ñoom ñii sëñ Moussa Diop mii fi laa ko fekk ci daara ji moo ma jiitu kon xam na ci lu ma ci xam kee mook sama mag ñoo bokk nekk ci daara ji kon xam na ci lu ma ci xam waaye nag biir moom day am yoon woo xam ne boo gisee sa kilifa tege ca moom nga tege ca nga nga nga nettali ca la nga ca war a nettali te muy lu tege ci yoon euh, wàññiwul dara loola tax ma yëkkati kàddu yi waaye ñoom ñi ñoo ko waroon a wax ndax ñoo ma ci ëpp xam-xam jërë ngeen kon nag ñoo ngi ñaan tey ñaan suñu kilifa yi tey sant rajo bi ak téléphone télévision bii ndax euh, nit ku nekk bisam rek la am waxtu boo ko yëgee rek ci sa bis maanaam mel nga ne boole nga ko ci sa bopp te waxtu woo ñëwee moom itam boole na ci boppam ci ak njabootam kon dagg gañu dagg seen yi te ñëw ngir bis bii ah ngir bëgg a gëstu doxinu dëkk bi ak doxinu borom dëkk bi tasaare ko ba képp ku bëgg a jariñu man caa jariñu ñu ngi leen ci sant te di leen ci gërëm te di leen suñu borom defal leen ndam te defal ko ñun ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf Baye kàddu yi am na solo bu baax kon dañuy tënk rek jox Baye Moustapha Diop chef de village mu def ay sant ci li nga xamante ni moom lañ ko dénkoon muy chef de village bi ak yi nga xamante ni ay doléances yi nga xamante ni dëkk bi dina ko soxla te moom it mooy rulam billahi min alsheytaan arrajim bismillahi irahmaan irahim barke si Muhammadan asalaamaaleykum mbokki taalibe bi góor ak yi mag ak ndaw dëkk ci dëkk bi ak ñi dëkk ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm te xam leen ne rek sëñ Muhammadan wax ci moom dana sore ci nu lool ba tax na ñii kilifa yi wax ba nopp li ñuy wax doy na sëkk sëkk sëkk sëñ Muhammadan dafa mel mel melokaan boo xam ne moom na njabootam gi mel seen njàmbat bariwut seen bëgg bëgg bëgg loolu jàmm yàlla rek ak liggéey loolu rek mooy seen bëgg-bëgg kon lu leen di waa di jàpp rek na nga leen jàppalee ci yoon wu ñu dikkee ci dëkk bi ndox moo am na fit tubaarkalla sant na lu baax a baax waaye li ci ëpp daal am nañ ko wax dëgg yàlla sëñ Mouhamadou dafa doon ko waxee dawul jàmbat lu mu soxla woon da koy dis yàlla sëñ Mouhamadou mi ngi ma fa wóoti it ko barneel mbanne barna njàmbat lu mu bëgg daal nañ ci taxaw ba ñëpp xam ne taxaw na ci te dogu ci am ko ku seet jumaay jii ak yëkko jëti yëkko jëkko bi mu fi jógee léegi kii eh, ñii mu fi bàyyi muy sëñ Muxtaar ak njabootam kii fas sëñ Maodo na awaan dong la ñëw bëgg jaamu yàlla ak liggéey te doy loolu la ñu am eh, te fas di jaamu yàlla waxtu na rek ku dégg bëccëg loolu rek mooy seen liggéey mooy seen bëgg-bëgg kon nag loolu daal wax ji mën naa bañ a gudd sant gërëm rek di ñaan sëñ Tuubaa yàlla na yàlla fay li ngeen ji fay teggal seen taxawaay te seen yéen di yàlla àggal ci barke sëñ Touba jërë ngeen jëf yoon yi moom am na jafe-jafe lool ndax naqare na ba jaaruwut ñii fi ñëw tey xam nañ ko am na jafe-jafe bu mettee mettee méttee ndax gànnaaw la boobu baree bari boo xam ne oto yu bari mënuñoo ñëw luñ ci waaye jàpp laa da nga ko jàpp te xëy moom lépp lu koy defal rek da nga ci da nga ci fekk moom waaw lu koy defal da nga ci fekk diggante bi fii ak daara ci waaw ñi nga xay ñoo yor yoole wax dëgg yàlla ko dégg daal côté nii la mel nii la nii la demee te lii la bëgg fu ñu jaamoo yàlla fu ñu liggéey képp waaw loolu rek mooy bëgg-bëgg. diggante war amat sept sept kilomètres waaw man amat sept fii waaw loolu rek mooy wax ji wax ji ni ngeen li ngeen wax doy na sëkk li ngeen wax <laughs> doy na sëkk doy na sëkk sant ak gërëm waaw loolu loolu mu wax dañ laa ci am tuuti lu ma ci bëggoon a dolli ndax euh, dañoo fii dafa am lu ñu baaxoo mooy de dañuy lekk ca la war te lépp lu ñu bëgg ñaan ko seen borom ku nekk te la la war tey ñaan sa borom nag waxtu jotee lépp a ñëw ndax fi doolu boo gëstoon courant bi dëgg dëgg la ko fi indi du tegeenu suñ maam waram euh, euh, wax boo gëstoo forage bi dëgg dëgg la ko fa indi lu ceegee nag dañoo dem na ko may may nanga kon leneen li ci des mooy mooy ñoom ah, ah, sëñ Mahmadan dafay nekkaloon yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ci njabootuk Serigne Touba bi ginnaawam nag la ko suñ borom faye njabootam gi ndax kenn koo xam ne daje nga moom boo waxoon ak moom da nga naan sëñ Mahmadan la ko jàngal mbaa moo ko yar kon lam lebloon ci njabootuk Serigne Touba googu la ko suñ borom faye ci njaboot waaw waaw léegi nag fii moom loolu rek mooy li fii dox moom moom dañuy ñoom kilifa yi dañuy nekk ca la nga war lépp lu ñu ittewoo dañ koy bàyyi ak seen borom rek waxtu wu jotee rek ñu def waaw njëriñ. ah jërëjëf comme ni nga xamante ni def nañ ko muy kilifa yi jàll kon bis baa ngi noonu muy màggalu Daaru Koso. ñu gën a insisté waat ci li nga xamante ni moom la chef de village doon wax muy dëkk boo xamante ni dëkk bu am njariñ la dëkk boo xamante ni ñëpp am na yéene dem siyaare ji barab boobu ak njeexte ya nga xamante ni borom daaru moxti moo ko fa defoon te demukaay it mel na ni xaw naa jafe lool ngir aw yoonu jafe-jafe képp koo xamante ni sa rôle la maam ñu dégg suñu kàddu nan jàpp ni loolu mooy domaine bu Daaru Koso yoon woo xamante ni dina taw feexe ba mën a ñëw ba gàllankoor yi nga xamante ni ñi bëggoon a màggal si loolu moo leen téye ñoo ngi ciy tàllal loxo ministre bi fu waaye mën a nekk nañu jàppale ci aw yoon ndax nee na ni mu ko waxee ndox mi ñëw na courant baa ngi fi kon ab dëkk daanaka bu amee ndox amu courant amu yoon dina gën a mën a jaamoo yàlla lool te dëkk la boo xamante ne bu xemmem teefu la boo xamante ni kilifa yëpp fi la ñu defaroo ay mbokki taalibe yi nekk fu nekk bëggoon a ànd ak ñun ci bis bi te ay jafe-jafe yoon dong moo doon li ko doon gàllankoor kon ñoo ngi ciy tàllal suñu loxo fu ñu mën a yegg ñu xam ne comme ni mu ko waxee kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk moom baaxoo jël dara di ko teg kenn ci force waaye nañ xam ne ci réew mi lañ bokk ay citoyen la am na loo xamante ni soxla nañ ko loo xamante ni ci domaine bi ñu ko war a waxee fi lañ koy waxee ñoo ngi tàllal loxo ministre bi nga xamante ni moo yor loolu ak bépp koo xamante ni mi ngi dégg suñu kàddu te man ci loolu nañ xam ne dëkk bu tedd boobu loolu rek moo ci aw gàllankoor yoon woo xamante ni dina ñëw ba ci biir dëkk ba ñoo ngi leen sant bu baax a baax di sant ki nga xamante ni moom la ñuy àndal bis bi chaque année muy Tawfekh Production mu ci def liggéey bu am solo